assalamu euh, alaykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baalu ak yéen ñëpp ñi nga xamante ni benn ñuy seetaan tey jii nag ñu nekk fii si groupe scolaire Al Irshad di école boo xamante ni mu nekk Yoff cité Alia Dieng école bi dafa leen di invité si benn fête bu muy organiser ñu koy wax fête de l' excellence pourquoi cette fête de l' excellence école bi ñu ko créé en 2011 mais résultat yi ñu am depuis 2013 euh, la commencé. Euh, en 2013 2014 CFA entré en 6e, ngi am 100 2014 2015 100 2015 2016 100 En 2016 2017 nous avons am option muy français et arabe Arabes. Nous avons une option yëpp bu 100 les gens donc nous dafa au niveau de l'élémentaire élémentaire résultat est xamante nous au niveau collège li fi jaar si ay année ñu def maanaam euh, mën nañ joxe rek xayma ñaari année yu mujjee yi année bu ne 70 pour cent la ñu am bu dee au niveau xale yi mokkal alxuraan maam naan ñi def mémorisation am nañ lu mat quinze xale yoo xam ne mën nañu wax ne ay xaafisul xuraan la ñuy génn si école yi donc loolu nekk na loo xamante ne bii dafay wane rek lu ndaw luy wane rek que ne école bi excellence moo ko tax jox loolu nag au niveau académique la au niveau des résultat la mais am na beneen wàll boo xam moo tax école bi wooyoo oote excellence mooy au niveau des valeurs ndax itam nit bu xel rek ko composé nit élément de synthèse donc pour dina jaadu comme dafa war a un citoyen wara vivre ensemble avec ay moroomam ay nawlem dina jaadu ñu tàgg ko bo bu génnee xam ni muy nekkee si biti loolu école bi haute valeur motax tax dañuy haute excellence au niveau des résultats scolaires manam au niveau de l'éducation de de de l'enseignement mais aussi au niveau de l'éducation donc lool motax école bi nek école bo xamante bi excellence lay woote motax fête bi mu organisé mu ñaan parents yépp ñëw fekk ci ko fële ñu koy defee le samedi 14 euh, juillet au niveau de Magic Land euh, mise en place bi nak 9h30 la mais 10h lay ñuy tàmbali kon ñu invité parents yépp ñëw fekk ci suñu fête de l'excellence bi nga xamante ni moy première édition. pendant les vacances xëy na di fatali parents yi ne dafa am dara yo xamante bi doon nañ ko organiser dara joo xamante ba dinañ jàngal xale bi aussi dinañ ko groupe scolaire à l'Irsha, nous avons une di euh, réinscription et l'inscription inscription pour l'année 2008 2018 2019 donc nous koo xamante ne réinscription pour nous inscrire mën en vacance va commencer le 30 juillet jusqu'au 15 septembre. Ah, nous ah. parents nous ñu inscrire seen doom. kon mbokk yi asalaamaaleykum rendez-vous le samedi 14 juillet au Magic à 9h30. avons l'habitude de le faire.